mbokk yi lu seen chaîne préférée seen njëriñ TV ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal ñëwaat rek indil leen xibaar boo xam ne neex nañu ndax lu naqari Macky Sall rek daf ñuy neex Babacar Diagne nekkoon fi ak Abdou Diouf jóge fi nekk ak fi Abdoulaye Wade nekkaat fi ak ki nga xam ne mooy Macky Sall nga xam ne nguur gu ñëw mu yëdd ko di directeur CNRA ànd ko complicité ak Racine Talla ci ndigalu Macky Sall daal di nay wax ne dañuy annuler enregistrement bi ñu defaloon Bassirou Diomaye fay ca foofee ca RTS tey jii candidat yëpp dinañ jàll dinañ wane seen image seen kàddu waaye ba mu des Bassirou Diomaye fay may dalal xel wala ñuy dalal suñu xel ñun ñëpp patriotes yi ak képp koo xamante ne Sénégal moo la ñor moo xam militant bu passif nga wala ngay partisan wala ngay xeex injustice xamal ne loolu day gën a yokk xar mi kawar damay wax saa su nekk Macky Sall 24 mars moo xam 31 mars moo xam déwén wala fii ba 2035 bu ko neexee mu yóbbu élection yi waaye saa yi bu ñu sampee ndënd yi tëgg bàkku bëree dees na ko yenn comme maître Clédor Ciré Ly ni mu waxoon ba ca kaw ba biir bu weex ñu daal di koy sëlëm Macky Sall ak ñu mu àndal dootuñu am jàmm ci réewum Sénégal ndax li ñu def askan bi toroxal leen fukki at ak ñaar boobu ba tey ñëpp teg nañ seen gët xanaa kuy naafee koo xam ne da ngay yaakaar ci poosu jàmbur wala gëmoo sa bopp wala liggéey doon ndaw te ndaw yëpp ñi ci ëpp te am jom am fulla te gëm yàlla te bëgg seen réew ànd ak projet bi ak Ousmane Sonko mooy jomaay jomaay mooy sonko ñu jóg ca teel xëdd daal di voté balaa sax ñuy wax ndogu ñu daal di jubilé loolu mooy slogan bi te loolu la ñu bëgg la def bu leen neexee sax bu ñu génnee Ousmane Sonko bu ñu génnee jomaay fay bu ñu génnee ci kenn sax waaye li am ba des mooy li xew ca akapes mbooloo mu bari daje fa ngir jënn jëm wala ay jëm muy Bassirou Jomaay Fay ak Sonko loolu ku mu tooyul sa xol wala ku mu deful nga retenir sa bopp xool xalaataat xam ne lii du neen yàlla kese la lu la neex defal ku dul sóoraale yi tamit génn gi nga xamante ne Ousmane Sonko dana ko génn du yàgg bu la neexee wax lu la neex Ousmane Sonko ci xol yi kenn mënu ci dara ku mu neex ak ku mu naqari Bassirou Diomaye Faye la tànn te tànn gi mu ko tànn neex na képp koo xamante ne sénégalais nga rawati ngay patriote nga bëgg sa réew amuñu ci sax luñ ci laam-laamee mbokk yi. bu kenn mer bu kenn saaga bu kenn toj lenn 24 mars dañuy am ndam ci mu neex mak na Macky ci mu naqari képp ku ànd ak Macky ndax it yàlla mooy dogal yàlla mi nga xamante ne moo bind asamaan ak suuf ak li ci diggante bi moom képp kuy noy moo xam mbindeef bu mën a doon yàlla moom lañ yaakaar te yàlla moom ci la ñuy wàkkirlu